salaamaaleykum mbokk internet wu dakarnet.com kon ni ñu koy defee saa su nekk euh, yaakaar naa tey ki ñuy dalal mi ngeen ko moom muy Alliance Baldé te moom lañu dalalaat fii ci Dakarnet duñ def rek lu jox ko kàddu yi mu nuyoog mbokk internet yi koy seetaan après ñu ko ci waxtaan. gannaaw ba ma sant yàlla julli si yeneen bi maa ngi sant suma ñaari waajur di leen ñaanal yàgg fi lool di sant sama sama wasila sama sëriñ sama xarit sëriñ Abdou Bara Mbacke Fallulu yàlla na yàlla guddal fanam di ñaanal kilifa diine yi. kilifa aada yi ñëpp ñu yàgg fi loor te wér ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen suñu borom génne bañ delluwaat ci jàmm ñi nga xam ne ñu ngi tëdd si lal hôpital yàlla na suñu borom fëgg seen bopp di ñaanal suma kër gi nga xam ne fi laa nekk muy suma yaay ayda ak suma papa Xaadim borom ay buur maa ngi koy siyaare bu baax a baax di ko ñaanal yàlla guddal fanam di ñaanal bépp mboolem jullit suñu boroom yàggal leen fi. alors mi ngi noonu kooku mooy alliance Baldé lu ñu defee lu dul xuus dugg waxtaan ak moom euh, lu ñu koy njëkk a laaj alliance yaakaar naa ci ñu waroon ñu bëree ci mois de juillet bi nga bokkoon. Euh, ñu gis ni combat dañ ko arrêté léegi yow naka nga ko gisee. waaw métti na ci ndaw. nga préparé combat ba mu des 2 semaines wala trois semaines mu yàqu amul. Mhm. ñu xëy xëy nee la la ñuy jàppaat date duñ la jox dara. Mhm. ba pare date du la neex lan lay jox métti na trop mais tamit sant yàlla rek. waaw parce que lu mënul ñaax moom faa mu am. aussi ñu gis ngeen nekk ndaw du war a bëree comprendre nga léegi ñoom ñu ñu euh, ñu bàyyi lépp daal maa euh, ci yéen ñi làmb ci ngeen tedd ci ngeen euh, jox seen yaay ci ngeen jox seen papa kon tey ji bu ñu jékki-jékkee tey ji arrêté làmb ji yéen fan ngeen jëm waaw metti na moom mhm. mais xam nga liñ naan boroom baatu kese du xeex ak boroom caq mhm. waaw li ma la mën a mooy làmb la te nguur moo fi nekk. Mhm. comme ñoom ñoo xool ba mu neex leen ñu ne arrêté nañ làmb ji ah nañ leen déglu rek. ba saa ah, mais mais alors ñun gis nañ que ni ah, nawetaan yi mi ngi dem. Ah, mhm. championnat yi mi ngi dem mais pourquoi ñu tëj làmb ji. ah mais xam naa loolu ñoom la quoi comme ñoom ñoom ñoo tëj làmb ji li tax ñu tëj ko xam naa ñoom ñoo ko xam. Mhm. waaw mais tamit euh, xam nga nekk ci làmb am ñu leen jiital ku ci mel ne ay ñoom Gris Bordeaux yaakaar naa ni moom moo ngeen def seen jiit mm-hmm. mais pourquoi moom euh, gisuñu ko fenn mu taxaw pour xeex euh, pour yéen ñi yoo xam ne yéenay xale ngeen bëree non man Gris Bordeaux jiitewu ma de si non Gris Bordeaux moo jiite non mais man jiitewu ma man maa moom sama bopp Gris Bordeaux jiitewu ma nga teg ni jiitewu la waaw parce que fi ma ko teg mooy si tegukaay bi man Gris Bordeaux mënu maa jiite parce que xam nga kan moo mën a jiite ki nga xam ne mm-hmm. bu dara xewee day génn wax pour ñëpp du wax pour boppam mais ana 2 millions yi mu la joxoon. Gris Bordeaux 2 millions man Gris Bordeaux mosuma déggante moom sax ba may jox 2 millions 2 ni ko nit ma am maa ko may sam bopp Gris Bordeaux mosuma kaa am maa ko may sam bopp Gris Bordeaux mosuma kaa dégg téléphone ba may jox 2 millions 2 millions yi noonu laa ko déggee rek. Mhm. waaw comme ni ko nit ñi déggee noonu laa ko déggee. Mhm. waaw mais Gris Bordeaux moom wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel mosul wax téléphone moo wax téléphone. Mhm. a nekk est-ce que du yoon tey jii ngeen jéem a xool mobilité wu nekk benn parce que bu ñu jàppee fee ñu jàppee fee gëm naa ne làmb du dox quand parce que dañ ne association les jeunes lutteurs loolu la ñu wax. ñu gisaat beneen association bu mag boo xam ne dañ ne association lutteur en activité. Mhm. muy bu Gris Bordeaux. Mhm. mais association jeunes lutteurs man gisuma ci sama bopp moo tax ma bàyyi. Mhm. waaw di ñaanal Siteu mu yàgg fi xamal tax ma koy ñaanal. <laughs> saay buy wax day wax pour ñëpp du wax pour boppam. mais Gris Bordeaux saay bu téye micro lay wax mobile de boppam lay waxal. xam nga man Gris Bordeaux moo joxoon xaalis ma toog di ko xalab mhm. am na loo xam ne xel moo koy xalaat dëgg la deux millions la ma Gris Bordeaux jox lu ma am maa ko may sam boobu man su ma toogee yoruma sax nit mënu ko xam ci man mhm. pourtant day métti si man comme ni muy méttee si ñëpp mhm. mais nag lu métti góor lay dal waaw lu tax nga bàyyi parce que ñi ko jiite mënuñu mag Balla Gaye 2 ñëw ne dañuy jiite ay xale ñan ñoo ko jiite ñoo xam ne mobile 2 ak Kona ñooñu xanaa ñu bees lañ mobile 2 boo xoolee moog Balla Gaye lu ñu magantee bariwul Kona boo xoolee magee na Balla Gaye lu mat 3 ans wala 2 ans mun ñoo ñëw du ñu xeexee di xool fu ñuy far. Mhm. parce que man mënuma jiite ma nga ne association nga yor ba pare bugaan recevoir la recevoir boo xam ne ba ngay dem kenn yëgu ko. ah ñoom bugaan day recevoir. bugaan recevoir na ñu dem ñoom bureau bi. ñoom paay rek ñoo demoon ay mobile de ay Kona ñoom ñoo demoon. Hmm. ak ak góom mi nga xam ne si tànk bàyyi la nekk bàyyi lamb la nekk am na 62 ans ba pare bëgg a ñëw ay xale yu ndaw. man mënuma nangu loolu xalaatuma ko sax comme man alliance su ma la déggee kon dafay mel ni kon ah, ñi nekk ci kaw ñoom seen affaire dafa baax moo tax nangu ñu leen geesu yéen non ñoom seen affaire baaxul de xamul tax seen affaire baaxul mais si parce que ñi ngi ànd ay ñoom bugaan ñoom ñëpp kay presque am na ci lu baax ah ñoom ñi ngi ànd ak ñoom moo ànd ak bugaan mënul tax sa affaire baax mm-hmm. bugaan ñi liggéeyandoo moom seen affaire baaxul ñoom ñi ànd ak bugaan seen affaire bi baax <laughs> ah doy na waar ah, xoolal li ngay wax rek ba xam seen affaire seen affaire mënul baax parce que ñoom. Mhm. Macky Sall fi nekk. ñoom ñu créé association Macky Sall jiital làmb ji ministre des sports jiital làmb ñuy dem di ànd ak Sonko wala ñuy ànd ak Bougane Gueye man du ma ànd ak ñoom xalaatuma ko ànduma ak Bougane ànduma ak Sonko. sa bopp Macky Sall moo fi nekk. Mhm. ministre des sports Matar Ba moo fi nekk. ñoom laa àndal bu ñu fi jógee bu fi keneen ku fi nekk ma ànd ak yow. mais alliance xanaa kon da ngay politique léegi. non non politique ma. parce commencé ànd ay ñoom Macky Sall ay ñoom ñooñu. billaahi man maa gën a tuuti ci mbër yi. Mhm. mais micro bi tey su ma ko téyee du alliance Baldé mbër moo ko téye déedéet. kan moo ko téye benn cit benn citoyen moo ko téye la voix du peuple lu ma sam bopp damay wax pour ñëpp. Macky Sall ba muy doog a toog si nguur gi la mu recevoir maa gën a ndaw ci ñu mu recevoir Mermoz. alors alors doguma la sax mais comme ni nga nee yow xam nga Matar Ba nga ànd ak ak Macky Sall jamono ji dëkk bi moom ñëpp a ngi yuuxu lenn mooy euh, euh, lu ñuy wax dund bi. yow lan ngay wax ci loolu comme nee nga yow mais képp koo xam ne am nga yaay am nga papa wala nga yor famille day metti si yow sàqantuma ak ñi nga xam ne amuñ ci amuñu ci amuñu ci luñ jàpp day metti si ñoom ban message ngay jàllale parce que euh, kilifa bu nekk tey bu yeewoo mu nga xool euh, lu lu mu am pour andi ko ci njabootam bu ko yokkee ni ñu fa lañ dem lancé ko message comme sa waaw comme comme lu mu ñu wax rek dañuy ñaan mhm. parce que ñaan lañ am waxuñu ko tamit foqarti wuñ dañuy ñaan. Mhm. bu fekkee mun na wàññeeku na ko wàññi parce que ñëpp sonn nañ. Mhm. muy képp koo xam ne yor nga njaboot rek sonn nga parce que metti na. Mhm. parce que nit day xëy pour mu am lu mu taal ci këram sax dafay metti waxuma la ak lu mu joxe dépasse. kon lu may wax rek ñu ngi ñaan en tant que citoyen en tant que doomu réew mi. mu wàññi lépp daal. mu jàpp ci mu xam ne moom lañ jox réew mi moom moo jite réew mi. Euh, li ñuy wax buur. wala njiit yàlla moo koy fal. nit du ko fal. Mhm. ki war a doon njiit pare na démb tey toog a ñëw. Macky Sall moom la fi yàlla teg. Mhm. bis bu fi jógee keneen ku fi nekk tamit yàlla na la suñu borom taxaw mais comme instant yi nii ñu nekk jamono bii Macky moo fi nekk. Mhm. nañ ko ñaanal yan bi oyof. waaw keneen ku fi ñëw tamit ñu ñaanal la. mu wax la leen foo fekk kañ ko sot. ñeme amu fa. waaw mais Macky Sall deuxième tour yi laa wax de alliance jàppale wuñ ko. déedéet moom dong moo dem Macky Sall àndul a kenn daa dem ba toog <laughs> nañu waxtaan rek si xel Macky daa dem ba toog. mais dama gis benn benn benn benn association bees xaw ma xaw ma xaw ma politicien yi bees. ñu ne yeewi askan yeewi askan mais ñoom gën a gën a tënk askan wi parce que ñi si nekk ñëpp dañ leen yaakaaroon. mais jàmbaar waar de. billaahi ñi si nekk ñëpp dañ leen yaakaaroon mais tey bu ñu demee ba xool. Hmm. juróomi ponkal ne kaañ sot ko kon foofu ñemee amu fa ñoom bu ñeme woon gëm seen bopp. Mhm. dañuy dañuy am yaakaar fi Macky Sall jaar ba yor réew mi ñoom war nañ fa mun a jaar ba yor réew mi. mais bu ñu tey bu ñu bu ñu bu ñu boolee juróomi ponkor pour sot benn booy bu ndaw. wala mhm. benn xale boo xam ne ñoo ko ëpp doole. Mhm. day fekk ñoom ñemewuñ man ak ma leen gëmoon mais bañ bañ tënkee askan bi laa leen bàyyi parce que ñoom <laughs> nañ ne yeewi askan bi mais man tënk askan bi laa ko tudd d'accord <laughs> daal ñu mën mën na déggee daal dafa mel ni Macky Sall nga àndal euh, bu ñu jógee foofu ñu gis ne fan yi passé kilifa dafa wàcc ci làmb mu nekk euh, Double Less de nekk Papay Balla Gaye ak Sa Thiès mhm. euh, naka nga ko dundee bi nga jógee xibaar boobu en tant que champion boobu noonu génn Sénégal at waaw en tant que en tant que doomu réew mi mhm. même bu ñu génnee cadre lamb bi képp ku dégg rek Double Less nalaw na dafa lay metti torop mhm. mais nag bakan bu ñam dund day ñam dee. Mhm. ñu ngi koy ñaanal suñu borom yërëm ko xare ko àjjana yi gën a kawe mhm. yàlla jéggal ko yàlla na dee nekk noflaayam ci barke Seydina Muhammad mhm. waaw njaboot bu mu fi bàyyi yàlla suñu boroom teg loxo mhm. léegi en tant que lutteur euh, mu gis ni dafay bàyyi Balla Gaye bàyyi fi Sa Thiès lan ngay ñaax ñoo nga xam ne tey dañoo ñàkk seen waaju boobu nga xam ne waaju bu góor moom yaakaar naa ne nga ñàkk ko mett na ak moom ni leen jegee ci wàllu seen làmb ci côté yëpp waaw métti na trop mais yàlla leen yàlla may xol bu muñ képp ku ñàkk sa waajur day metti ak ku munti doon mais nag suñu borom moo ko bëggee noonu yàlla na yàlla na leen yàlla may xolub muñ. dina leen manqué trop nag mais yàlla leen yàlla may xolub muñ daal. waaw hmm. ci bari Seydina Muhammad. d' mhm. ñu fa jógee rek dañuy nekk ci làmb. parce que ñun saa yu ñu toogee dañuy waxtaanee ci làmb quoi. Mhm. ñu gis ni làmb ji léegi ñu ciy feebar bari na mbay ak lum. Mhm. koo xam ne yàgg naa représenté làmb fu nekk di génn fu nekk di dem di wayal. comme dégg naa dafa feebar ba tànk bi. am nga dëgg la euh, bu ñu fa jógee foofu Bébé Saloum moom it dégg naa fu mu nekk prison dafa feebar mhm. ba ba gars ñu ngi koy ñaanal pour mu génn mhm. naka ngay wax ci loolu waaw metti na mais mais feebar moom fi lañ ko fekk mhm. suñu boroom moom lu mu def rek am na lu tax dañoo tawat yàlla leen suñu borom teggil tawet yi te bañ kaa teg kenn si ci barke Seydina Muhammad metti na nag parce que boo xoolee liy feebar ci làmb te duñu am kenn ku leen taxaw bari na mais mais mais ku ci mel ni mbayum taxaw woo woo woo sib ñu jël ko mu wax kon ne naa kooku noonu soxla ñu ko jàppale ak lu mu def ci làmb yëpp kooku yaakaar kenn rek ci mbëri waroon nañ ko mën a jël en charge faj ko Sénégal ñiy def te yàlla tax bëriwul mm-hmm. wallaahi mm-hmm. du du dara moo tax may wax gis nga ñiy def te yàlla tax moo bëriwul xam mm-hmm. nga day def te def ngisal moo bari man amaana du du ma wax kenn jox ma am naa nag nit yoo xam ne mun nañ ma jox mun naa leen laaj ñu jox ma mais gis nga joxe dafa metti mais ñaan moo ko gën a metti joxe metti na trop mais ñaan moo gën a mhm. ñoom metti na ñu toog si télé woo ay nit pour ñu dimbal leen bu ñu ko amoon duñ ñaan mhm. kon ñi leen war a dimbali nañ leen dimbali fu ñu koy ñaanee ko maanaam ci axlu làmb bu mu bokk waaw axlu làmb ñoo ko war a jàppale waaw man foofu parce que Aziz Ndiaye mu ngi fi Pape Dou Fall mu ngi fi mhm. ñeneen ak ñeneen ñu ngi si làmb ji yaatu ñooñu yóbbu nañ ko fu nekk euh, ci ci àdduna bi pour mu wayal leen seen bés waaw waaw mais mais daal man li ma mën a wax mooy. Mhm. yaatu na metti na. Mhm. a ah, xaw ma nag feebar bu feebaru tubaab la xaw ma feebaru olof la. Mhm. mais damay ñaan jëmm ji toog muy xaadim. muy muy borom yàlla yi kese. man xaw ma may lem dama koy gis si làmb ji aw ma ak moom benn kes aw ma moom benn connaissance. mais maa ngi koy ñaan moom tamit mu jàpp ci faj ko. Sénégal nañ jàppale. ma ngi lu moo gën. gëj nañ déggante nag doon nañ déggante parce que yoruma téléphone. Mm-hmm. mais xam naa ne su ma déggante ak moom dina ko faj. incha allah maa ngi koy ñaan bu fekkee dégg na ko mu jàpp si tamit mu wér su ma papa Souleymane Ndéné Ndiaye Kara Mbodj l'international ñoom ñëpp nañ si jàpp faj ko. Mm-hmm. parce que ci làmb la bokkoon te tamit tawat dab na ko. muy mm-hmm. Aziz Ndiaye muy muy muy muy Baye Ndiaye muy ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si làmb rek. nañ si jàpp te bu méttee nga muñ rek suñu borom mun na la ko teggeel. jaajëf waaw mi noonu ah, mbokk internet yi yaakaar naa ni dañu amoon ci ay minutes jeex na ah, di di gërëm tamit kilifa bi ñu fi fekk ah, ak tamit suñu yaay boobu toog di ko ñaanal ñoom ñu gudd fan rek te lépp lu ñu bëgg rek suñu borom defal leen ko ci barke sir naa xam ne alliance yaakaar naa ni tàggoo tàggatoo nga ba pare. non tàggatoo gu ma de. <laughs> non tàggatoo gu ma xamul tax tàggatoo gu ma. Eh. parce que làmb mooy yaatu te daa metti mhm. ñi ñi nga xam ne dañuy toog. di seetaan wala ñuy xaar dafa bari mhm. te ku ne day bëgg nga nga jàllale ko muy Moussa Play taalibe Seex da siy jàpp bu baax moo mhm. get da siy jàpp bu baax mhm. jëf jël États-Unis maa ngi koy ñaanal mu daan waaju bari wax ji dëgg géejawaay buse xam ne moom lu mu am làmb moo ko may mais du toog fenn ba gërëm làmb te xamuñu ne lu mu am si àdduna làmb moo ko may allaaj Mbay waaw day war di fàttaliku làmb